lay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmmalul boppam soxna jaara soxna jaara auzu billahi min aseytaani rajim wa inni ya unisuha bika wa suriyataha min aseytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamasaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yaxduroon ñi ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi doon la yàggaat lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax mbenda jaxu nay ba saala penda mi des si ngaraaf ardoo nga maafaan waaye pël baa nga mboobeen Modou Mbenda Fall jàmbaari carrière waaye Modou Mbenda Fall seenoon du ñu ree di ko ñaanal sëñ Amdi Fall naaru maam Khady Niang de Baye Fall yàlla na fi yàgg lool ànd ak di ko ñaanal bu baax nimal xalifatu Serigne Cheikh Bintou Fall xalafan mat na xalifa ci lislaam ku mel moom jafe na xalifa Cheikh Mouhamadou Abdoulahi Fall Ndar na fi yàggaat lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax Serigne Thierno. moom Cheikh mun taxaa Mbacke mi nga xamante ni moo waral sunu jotaay bii di bis bu tedd bis boo xamante ni sunu jàmbaar ji soxna Amy Yalla Ndiaye liggéey ko nu maam Seeni bu njaay soldaaru maam Seeni bu Ndiaye ambassadeuru maam soxna jaara bu ngeen gisee soxna Amy Yalla muy dem jëru ngeen laajte yittey maam soxna jaara la def mbégte. moo waral suñu ndaje mu tedd mii nga xamante ni addi ji nga xamante ni soxna Amy Yalla doon na ko dajale ca bitim réew ak fii ci senegal mu jëm ci màggaluk poroxaan jaar ci buntam ñu war koo teg ci loxoom muy Serigne Thierno moom ma Mahamadul Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàggat lool ànd ak wér ñu feggoog ci jotaay bi sunu baay baay Malick Sarr moom baay Mour Sarr mat moom maam Cheikh Rayen Fall Babul Mouridine feggoog sëriñ mi nga xamante ni moo nekkal soxna si fii ci kër gi di ko jàppale ci liggéey beek njaboot gi yal na yàlla defal ko jàmm ci barkeem sunu maam Cheikh Ibrahima di siyaare soxna mi yàlla bu baax di ko gërëm bu baax waaye di nuyu bu baax daayira yi nga xamante ni soxna mi yàlla jiite na leen muy daayira subulu salaam Paris Paul 10 groupe Baye Fall daayira maam bu njaay bi nga xamante ni Serigne Cheikh Jëmbu Serigne Cheikh Bintu Fall sunu jàmbaar ji def na ko jëwrin ci diaspora ba muy liggéeyal maam bu njaay waaye daayira subulu salaam bi soxna mi yàlla di si jàmbaar waaye ànd ceeg ay jàmbaar moo waral ñu sàkk woon ndigal ci seen sëñ Cerno moom Cheikh Mahmadul Muntaxa ci màggal gii nga xamante ni moo nekk sunu kanam muy le 25 février muy màggal ak maam soxna jaara soxna mi yàlla nag di sëtu maam seeni bu njaay kon bu àndeek ab daayira jël seen jëf jëf jébbal ko ki nga xamante ni mooy sëñ Cerno moom Seex Mamadou Muntaxa day yell ndax jaara man day seeni bu njaay li soxna jaara yor di ko jaay yaa ko musal waa njëre njaay saw ngañ ron na yaa texe waaye maam seeni bu njaay amutu ngañ soxna mi yàlla dajale addi ji nekk sunu ginnaaw ak addi ji ñu nekk sunu kanam muy ceeb bu bari ànd diwlin ànd li ci war a dem yëpp rek teg ko ci loxol bay Malick ñu ànd ak dong bi Xaadim Mbend ak Serigne mii war a déparé fii ci Mbàkke yóbbu ko ci ki nga xamante ni mooy Serigne Thierno moom Cheikh Mouhamadoul Mountakha waaye soxnaam yàlla bay Fallou Maam Jaara bi mu taxawalee liggéey bi nag dafa am ay jàmbaar ñoo xamante ni lu son am yàlla ne. ci lislaam lu soxna am yàlla nekk ci liggéeyal maam bu njaay lu soxna am yàlla nekk ci liggéeyal maam soxna jaara ñooño bu leen soxna am yàlla woowee ñu jël seen addiya tabbal ko ci daayira bi muy ay jàmbaar yu mag nekk Paris am ñu nekk Italie am ñu nekk New York am ñu nekk fii Sénégal ñu ngi kiy njëkkal jàmbaar yi Serigne Fallou jëwriñ universel muy soxna May Mbeng bëgg fàllu ñu ngi koy ñaanal bu baax ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal mi ni woon bu du woon ak maam Cheikh Ibrahima Fall kon naat bi raw soxna May Mbeng bëgg fàllu jëriñ universel nekk itali yëkkati na leen teraangu yu am solo def ko ci liggéey bi waaye soxna mi yàlla mi ngi lay sant Serigne Thierno mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm ndax lii nekk sunu ginnaaw lépp rek poroxaan la jëm soxna May ñu nga bëgg fàllu ñu ngi lay sant bu baax jën universel nekk Italie waaye di jaajëfal bu baax jeneen jàmbaar nekk jën universel soxna su jéey nekk Italie nekk jàmbaari lislaam nekk ñay xare soxna su jéey mu baax mi moom tamit yëkkati na ay teraangaam dugal ko ci àddee ji nga xamante ni moo jëm sëñ Cerno sëñ Cerno war ko yóbbu Poroxaan waaye di gërëmaat bu baax borom Lansar muy jëwriñ soxna maam jaara saar moom France la ne di jàmbaar lool di ñayu xare di ku yàlla baaxal jël alalam dugal ko ci daayire bi soxna mi yàlla war koo teg ci loxol sëñ Cerno sëñ yóbbu ko Poroxaan soxna maam jaara Sarr jëwriñ ñu ngi lay siyaare ñu ngi lay bëggee ñu ngi ñaan ci barkeb saar ci barkeb góoru Muhaajiriin yaaki Lansaar yàlla na sunu bopp yokk say xéewal ci barkeb sëñ Tuubaa dooley maam Cheikh waaye di gërëm ki nga xamante ni du sonn du tay aar bu soxna ami yàlla jugee mu jug ko kan la soxna lay dukkure ba pari soxna ami yàlla mi ngi lay gërëm mu ngi lay sant waaye Serigne Thierno mi ngi lay gërëm Serigne Thierno mi ngi lay sant nee na mi ngi ñaan yàlla na sunu borom boole la ci milliardaire Serigne Touba yi ak képp ku bokk ci daayira bi ndax soxna ami yàlla buy laaj social tabaski buñ gëstoo gis olay dukkure wuli sumaam maam seeni bu njaay bun buñ gessoo gis ulay du kore tey jii addi jii ñu war a jébal sëñ Cerno muy bu ko poroxaan soxna ulay du kore jàmbaar la ci loolu waaye ñi gërëm bu baax ki nga xamante ni nag moo nekk ci daara ji du sonn du tay mooy jàmbaar ji mooy soxna ndey mbu mu baax mi borom këll gi nekk ci Sénégal ñi ngi koy siyaare bu baax a baax ñi ngi koy jaajëfal soxna saa lay sant soxna saa ngi lay gërëm ñi ngi ñaan addiye ji lii nga ci tàbbal yàlla na sunu borom ful ko te boole ci milliardaires yi sëñ Tuubaa yi soxna bu borom këll gi waaye fàttewuñu Adja Mbaye Ngéey Paris di jàmbaar lool di kenn ci soxnaam yàlla di wëllëreem di xaritam di soppeem addee ji Adja Mbaye Ngéey addee ji nga xamante ni tabal ngeen sa ñaq ñi ngi ñaan yàlla sunu borom boole ci milliardaires yi sëñ Tuubaa yi barkeb sëñ Tuubaa barkeb Cheikh Mamadou Muntaxa waaye di siyaare bu baax Adja Càlla Jéey moom tamit di kenn ci soxna si nekk pari di jàmbaar lool ñi ngi ñaan yàlla na sunu borom boole la ci milliardaire Sëriñ Tuubaa yi Adja la Jeey soxna si bég na Sëriñ Ceerno bég na addi ji jëm Poroxaan ca màggal ga tabal ngi sa ñaq ñi ngi ñaan yàlla sunu boole la ci milliardaire Sëriñ Tuubaa yi Adja Calla Jeey waaye fàttewuñu ki nga xamante ni nag mu nga nekk Sénégal soxna Awa Jaw soxna saa ngi lay gërëm soxna saa lay nuyu sëriñ Cerno mi ngi lay gërëm mi ngi lay nuyu ñi ngi ñaan yàlla na sunu borom yokk say xéewal ci barkeb sëñ Tuubaa dooley maam Cheikh waaye fàttewuñ ki nga xamante nii nag ni ma ko waxee soxna lay Dukkare moom tamit soxna ñaaña Jóob pari di jàmbaar lool social tabaski wali su màggal lu soxna si xewle buñ xoolee liste bi gisi ajaa ñaaña Jóob nekk Paris di jàmbaar lool nag ñi ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa dooley maam Cheikh ajaa ñaaña yàlla na sunu borom yokk say xéewal waaye fàttewuñu ki nga xamante ni mooy mbay Diop nekk pari ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaare Mbaye Diop ñu ngi ñaan yàlla na sunu borom yokk say xéewal addi ji nga xamante ni moo jëm ci sëñ moo war a jëm Porokhane sa ak si na taalib yëpp ñu ngi koy rafetlu sëñ Mbaye waaye di nuyu bu baax sëriñ Saer Darame Darame Kanji Socé. sunu baay bu baax boobu ñi ngi koy siyaare ñi ngi koy nuyu ñi ngi ñaan yàlla na sunu borom yokk ay xéewalam yàlla na sunu borom sàmm ko yàlla na sunu borom aar ko saa su nekk lu soxna si xewle addiyaam da ci tàbbi mu tabbi ci màggalu poroxaan gii nag ñu koo jébbal Serigne Thierno moom Cheikh Mamadou Mountakha Serigne Seer Daraame soxna si bég na waaye Adja Dior Diouk Serigne baa ngi lay sant moom nekk Paris Adja Dior Diouk Serigne baa lay sant Serigne baa ngi lay gërëm. mi ngi ñaan yàlla na sunu borom yokk say xéewal jóg saa su nekk mi ngi pari waaye lu soxna si woote ci liggéey maam Serigne Fall lu soxna si woote Adja Dior ci liggéey maam maam Serigne bu Ndiaye lu ñu woote ci liggéey maam soxna jaar Adja Dior jóg kenn du ko si jiitu waaye soxna saa ngi lay sant soxna saa ngi lay gërëm si àddi yi ngi ki tàbbal yi ngi ñaan yàlla na sunu borom ful ko waaye Adja Kumba Cissé senegal jàmbaar ja Cissé ngaari njar meew borom bëri jàmm Cissé borom Jarmew Cissé borom Waareen Cissé Adja Kumba Cissé soxna sang lay gërëm soxna sang lay sant mi ngi ñaan yàlla sunu borom yokk see xéewal waaye ki nga xamante ni nag mooy Adja Ami Njaay Kara senegal soxna daa soxna sang lay sant soxna sang lay gërëm di ñaan yàlla na sunu borom yokk sey xéewal ci barke Sëñ Tuubaa dooley dooley maam Cheikh Rafal yàlla na sunu borom yokk see xéewal waaye ñu ngi nuyu baax soxna Buri Njaay lingeer lingeer bi Sénégal soxna Buri Njaay ci social tabaski bi soxna Buri Njaay ci wëli su màggal waaye soxna Buri Njaay ñi ngi ñaan yàlla na sunu borom yokk see xéewal ci barke Sëñ Tuubaa doole yi maam Cheikh waaye soxna saa ngi lay nuyu baax soxna Buri Njaay addi ji agsi na waaye sëriñ Ibra Kebe senegal moom addiyaam agsi na soxna saa ngi lay nuyu sëñ Ibra Kebe soxna saa ngi lay sant soxna saa ngi lay gërëm addi ji nga xamante ni moo jëm ci ki nga xamante ni mooy Serigne Thierno moom Cheikh Mamadou Mountakha soxna saa ngi lay gërëm waaye ki nga xamante ni nag mooy jàmbaar maam Fatou Diagne Sénégal moom addiyaam agsi na ñi ngi ñaan yàlla na sunu borom yokk ay xéewalam soxna maam Fatou Diagne ñi ngi ñaan yàlla na sunu borom yokk ay xéewalam yàlla na sunu borom aar ko yàlla na sunu borom sàmm ko ci barkeb Sëñ Tuubaa doole yi maam si Rafal soxna saa ngi lay gërëm soxna saa ngi lay sant di ñaan addee ji liñ ci tabbal yàlla na sunu borom fal ko waaye ki nga xamante ni nag mooy soxna Ndéla Diouf jàmbaar ja borom siin soxna Ndéla soxna saa lay sant sono saa lay gërëm moom addiyaam agsi na jëfum agsi na ñi ngi ñaan yàlla na suñu borom dool boo boo booleel ci milaaneeri sëñ Tuubaa yi soxna juuf waaye soxna saa ngi nuyu bu baax sono eh, Bongal juuf Bongal Diouf di jàmbaar lool biñ nuyoo soxna Bongal lañ ciy teg di jàmbaar lool nag ñi ngi ñaan yàlla na suñu borom yokk say xéewal Bongal juuf ñi ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa dooley maam si Cheikh Bongal juuf yàlla na sunu borom yokk say xéewal addi liñ ci tàbbal yàlla na suñu borom yokk ko waaye sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Anta Lay Espagne jàmbaar lool nag lu soxna si woote kenn di si jiit addiyaam Cheikh Anta Lay Espagne ñi ngi ñaan yàlla na suñu borom yokk say xéewal ci barke Sëñ Tuubaa dooley maam Cheikh kon bu ko defee dañuy jox ki nga xamante ni nag moom la sëriñ bi moom la sëriñ bi booleeg ki nga xamante ni mooy Baye Malick saar waaye sëñ sa dem Gambie di kenn ci soxna si màggal gu ne sëñ Idrissa fii lay dal lu soxna si woote sëñ Idrissa yëkkati addiyaam tàbbal ko ci kon sëñ Idrissa dem ñu ngi ñaan ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall addi ji liñ ci tàbbal sëñ sa dem yàlla na sunu borom yokk say xéewal yàlla na sunu borom ful ko lii dafa jëm ci ki nga xamante ni mooy jàmbaari sëñ Tuubaa ji muy sëriñ Cerno moom Cheikh Mamadul Muntaxa mu jaar ci soxna si sëñ sa yàlla sunu borom yokk see xéewal kon bu ko defee nay jox Baye Malick mi nga xamante ni mooy lépp di sunu bàyyi ndax maam Serigne Fall dane woon mag mu ne wàllu ñun ko fàllu tax mu ni daa fekk ba dégg ba tey gis ba tey Baye Malick ku ne xam na ni ñi ngi jëm Porokhane waaye le 10 ñi ngi jëm ca màggalu maam Seynabou Ndiaye addee ji dafa am ñaari pàcc dafa am lu jëm màggalu maam Soxna Jaara am lu jëm màggalu maam Seynabou Ndiaye lii moo jëm ci màggalu maam Seynabou Ndiaye yan kàddu nga ciy sof ñu yëkkati jotaay bi fas yéene dem foofu ca Daaru Tanzil jébbal liggéey bi jàmbaar ji Serigne ceer Moussa Mamadou. maaleykum salaam sëñ Khadim Bamba ñu lay santaat bu baax sant Cheikh Ibra euh, di sant sëñ Thierno mi nga xam ne yàlla ak Cheikh ba dogal na tey <coughs> ñu jëm si fa moom ak jëf ju mel ni ji nga xam ne moom lañ jëf te ma wax ñi ko jëf ñëpp léegi sant itam sëñ Cheikh Buntu Fall sunu buntu ndax ñaar nga boole muy. maam Jaara Buso Poroxaan ak maam Seynabou Ndiaye ñoom ñaar yooyu ñooy ñaar ñi nga xam ni lépp li réew bi teg seen loxo man caa jëriñu ci ñoom la jógee kon sëñ Xaadim jërëjëf yooyu itam sab taxawaay rafet na ndax soxna si kat lu baax la bëgg ci lu baax la jëm ñu baax la àndal ñoom ñëpp ñu bokk di jëf lu baax waaye yow it da ngay feeñal lu baax la ñuy jëf te loolu lu am solo la ndax nit bu dee def lu baax suba ba ngoon war na am ku ko taxaw ni ko jëf te yow jërëjëf ji yow yaa ko yore mboolem koo fi tudd aw turam ak ña nga tuddul aw seenu tur ñëpp seen jëf soxna si nga xam ni mooy la yàlla dogal mu yore. yéen bu mag bii di maam jaar Bousso ak maam bu jaay ak Touba ca kanam ba cër yu bare bare bari Serigne Touba ak Cheikh ba Fall jox ko ko foofu foofu mu nekk loolu ak cër la boo xam ne bu fa nekkoon di foofu mbaa bu nekk fa def leneen loolu du ko am waaye nag ñoo ngi ñaan yàlla woyafal yéen bi te mu yóbbu ko fi ko bëgg ci loolu Serigne Touba ak Cheikh Ibra waaye di nga xam moo toog ci kër gi nag ndax Cheikh Ibra dane ku la gënub aawo gën la taaw gën la jëwriñ bu gën digaloo moo ëppale la kon Serigne mi toog ci kër gi te fi dara itam soxna si wóolu ko bàyyi ko ci di muy rakkam di léppam di di di loxoom ku ñëw fekk ko fi moo it ñu koy sant ci taxawaay bi waaye sëñ li ma delluwaat rek ndax mboolem ku ñu war a tudd tudd nga ko lu ñu war wax wax nga ko Ah, teewaay bi nag liñ ci jëriñ mooy seede seen wax ji waaye seede soxna si waaye seedeel ñi nga xam ne bokk na ànd ak ñoom ci liggéey bu rëy bu rafet bii nga xam ne def nañu ko ngir yàlla ak jëmi sëñ Touba ak Cheikh Ibra kon dafa mel ni am na benn jéego bu nu seqi jëm ca maam Thierno moom sëñ Mountakha moom sëñ Bassirou sëñ Touba mu desewaat beneen jéego bu ñu war a seq jëm ci sëriñ Cheikh Bintou moom sëñ Modou Abdoulaye Fall moom sëñ Abdoulaye Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall muy muy muy muy muy maam Seynabou Ndiaye kon euh, yoo yitte yooyu mooy dox gi noo ngi sant di sant itam euh, sunu caméraman bii nga xam ne wax dëgg yàlla moom itam ban fi dalee ñëw ba tey saa bu ñëwee fekk ko ci muy doxal liggéey bi liggéey doxal bu rafet sëriñ Bay Seck ànd ceeg tey akub yar ak teggin akub taalibe tey lan ma si jël ñu waxtaan fii waaye nag fekki nañ yeneen yoo xam ne ak tey ji dara soppikuwu ci lépp ab yar ci la ko teg ak teggin akub taalibe kon nag noo ngi ñaan daal sunu doom yi noonu ko sëñ Xaadim waxe muy koo xam ne ku bëgg soxna si la waaye ku defal yàlla ak sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra Fall ku mën a feeñal jëf la ku rafetu xol la ku mën a yaatal la kon yàlla na ko yàlla doole te jàppale ko ci barkeb Cheikh Ibra di ñaan ñëpp jàppale ko ngir yàlla jëmi sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra ndax moom de fu mu yegg dina fa yóbbu euh, liggéeyal Cheikh Ibra Fall gii dina fa yóbbu liggéeyal sëñ Bamba bii kon fu waay di tasaaree lu baax Eh, ab teewaayam aku teew aku aku aku eh, ma ma ma eh, da cay day dal suñu xel ndax moom fu mu teew wóor na yàlla ak Cheikh Ibra Fall lu ci war ci taalibe bi lu war ci Cheikh yi lu war ci Serigne Touba lu war ci nit ku baax dina ko fa def dina ko fo wax xam naa dañu wàcce suñu kàddu foofu sëñ Xaadim di sant nag soxna si bu baax ndax soxna si lii muy defit lu mu war a def la bu dee liggéeyal maam Jaara war na ko ndax maam Jaara ak maam seen bu jaay bu doon histoire mën nañ leen indil fo ñu bokkee waaye eh, soxna si ci boppam bi nag nag boo indee maam Seydou bu jaay ci biir la nekk ci bokk gala bokk kon loolu moo tax soxna si lii muy def deret la junne ci moom joo xam ne sa force bu def ko di ko dox di ko wax ku ko ci jàppale yàlla yàlla fay la te ñëpp danañ ko ci jàppale asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh moom Baye Mour Sarr Mat moom maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyam mbokkoon ñi doon taxanal maam Cheikh Ibrahima Fall Mat ñu ko gën koo xam ci Baye Mour Sarr Mat ñi ngi ñaan yàlla suñu borom yokk say xéewal waaye gàcce ngalama soxnaam Yàlla Njaay waaye gàcce nga la ma Serigne Cheikh Bintou Fall ci liggéey bii nga xamante ni ànd na ko soxna si ku ne xam ne ni le 10 février le 25 janvier la màggalu maam na jaara kan moo koy taxaw njabootu Serigne Basiiru màggalu maam Seyni bu Njaay nekk le 10 février kan moo koy taxaw njabootu sëñ Moudou Abdoulaye Fall Ndar kon Serigne Cheikh Bintou Fall gàcce nga la ma soxna am Yàlla di sab taalibe bu jëlee ay teraanga ànd ak ñim àndal mu jëm ci kër Cheikh Mahamadul Basir ñun Baye Fall yëpp ameel nañ Cheikh Mahamadul Basir njëkkal njukkal waaye ñun Baye Fall yëpp ameel nañ Cheikh Mahamadul Muntaxa njukkal keroog ba mu toogee la jëlaat dëkk bii ak li ko wër teg ko ci loxol maam Cheikh Ibrahima Fall woone woote ay at journée yoo xam ne zikrullahi tudd yàlla di si delloo njukkal jàmbaari Sëñ Tuubaa muy maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamante ni moom la suñ Tuubaa indi woon ci làmbi lislaam bi waaye diggante sëñ Basiiru ak maam Cheikh maam Cheikh moo jëlee moo jëlee sëriñ Basiiru moo jëlee maam Cheikh Njaareem 1930 indi ko Touba te ku ne xam na ni soxna Fall Mbaar soxna maam Cheikh Ibrahima la di doomi ki nga xamante ni mooy Mbaar Joor Siga ca njukki maam Cheikh bi mu ko dencee da ciy am soxna Fall Mbaar. soxna si Fall Mbaar Serigne Touba moo ko jël ci suñu nopp dénk ko maam Serigne Fall maam Serigne Fall denc ko am ci bàyyi sëñ Thierno mii ñu jëm muy sëñ ci Asu Fall di magi Cheikh Mamadou Mountakha toppoon ci Cheikh Moustapha Fall Basirou kon ñun Baye Fall yi amel nañ Cheikh Mouhamadou Basirou njukkal kon sëñ Thierno ñi ngi ñaan màggal gii nga dëgmal muy sa màggalug maam maam Soxna Jaara teraanga yii soxna am yàlla yëkkati. ànd koog jàmbaar yi ma tudd yëpp rek ànd koog daayira maam Serigne bu Ndiaye association Mika daayira Suburu Salaam Paris Paul 10 ak mboolem daayira yi nga xam ne son amee la jiite na ko Sénégal Amérique Espagne fépp ci àdduna bi ñu dajale seeni alal teg ko ci loxol Baye Malick mii ñu war koo jébbal Serigne Thierno moom Cheikh Mamadou Mountakha yal na sunu borom. yokk ay xéewalam yàlla na suñu borom yàggal fi Cheikh Mamadou taxa ndax maam Cheikh Ibra Fall dañu woon Moustapha Bassirou ab teeñ la yan baa ngi ñëw te yan bii mooy Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké di dund maam Cheikh Ibrahima Fall di ab Baye Fall kon ñun baay Fall yëpp ñu ngi ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na suñu borom yàggal ko waaye sunu jàmbaar jii nga xamante ni mooy soxna Amy Yalla Ndiaye liggéeyaa ko nu maam Seeni bu Ndiaye soldaaru maam Seeni bu Ndiaye ambassadeur maam Seeni bu Ndiaye liggéeyaa ko nu maam soxna jaara soldaaru maam soxna jaara ambassadeur maam soxna jaara bu ngeen gisee soxna am yàlla muy dem jaru ngeen laajte waaye yitte yi maam seeni bu njaay ak maam jaara buso rek la def mbégte moo waral sëñ Saliou njaay ni woon jaxuloo koor mooy nday yaram sek di mbokk maam Fatou Kobar bul ko sikk kon ñu ngi ñaanal bu baax suñu jàmbaar ji sëriñ Cheikh Bintu yàlla na su borom yàggal ko waaye di ko ñaanal jàmbaar ji ñu jëm muy sëñ Cerno moom Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na suñu borom yàggal ko lool ci barkeeb teraanga ji nga xamante ni war nañ ko yëkkati dem jébbal ko ki nga xamante nii mooy sëñ Cerno te maam Cheikh dañu woon ku dox juróom-ñaari jéego tama tax ñu jéggal sa juróom-ñaari maam képp ku ci tabal addee jii tànk yi ñuy déparé fii ci Mbàkke jëm kër sëñ Cerno yàlla suñu borom jéggal ñëpp uh, ci barkeb sëñ Tuubaa doolay maam Cheikh Baye Malick da ngay ñaan ñu yëkkati jotaay bi ak fëkk sëñ Cerno waaye di gërëm bu baax sëriñ Mbay Sekk mi nga xamante ni sunu caméraman bu màgg bii yàlla na sunu borom yokk sit bi yàlla na sunu borom aar la yàlla na sunu borom sàmm la ci barkeb sëñ Tuubaa doolay maam Cheikh allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman barki borom Tuubaa doolay maam Cheikh soon amee la ak ñëpp ñu mu àndal ci daayira bi yàlla na sunu borom yëkkati leen ndax Europe boo fa nekkee di liggéeyal sëñ Tuubaa day li war ndax addi am am am kiyal ma rek dencal ma la boo nekkee Europe di liggéey da ngay amus tuut ba noppi rawale sëngëm ndax samaas gii buñ leen laajee ci daayira yu mel nii lu ñuy wax son am yàlla woote bi mu woote daa bëri samaas gi waaye soxna am yàlla lu ngeen ko jox joxaat na ko njabootu sëñ Tuubaa joxaat na ko njabootu maam Serigne Fall wut kaalis nag sama góor ga nee na ku mu yóbbu ci ab dëkk di nga wut ba sonn doo am dara da ngay amus tuut ba noppi rawale sa kom comme nii jàmbaar yii yëkkati addi jii njënd ko ceeb bu bari war ko jébbal Serigne Thierno moom Cheikh mu Mountakha ak yii mu àndal loolu mooy yoon wi kon ñu ngi ñaan ci barkeb suñ tubaa doole yi maam Cheikh soxna am yàlla ak mbooleem ñi mu àndal ñëpp rek yàlla na suñu borom yëkkati leen ci barkeb suñ tubaa doole yi maam Cheikh allahumma salli wa sallim wa barik jërëjëf Baye Mbaye soxna jaara moo di day ba muy desi di feeñaat teeram wade foofu ndaw soxna jaara bu gi yéen kon mi neefi tey duñu beew waaye nga te waaye nga te nga te foo nga jëlu ma fi des yow yàlla jox barke soxna jaara bu defan suq cuune du ñu wan ki ñuulu dogle doot ko cim nen soxna jaara la ñuulu mosula julli te jàppul mosula julli te wildul loola kay sangam tuubal daal wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ji yekk jigéenam soxnante njaayi mbokkam saalam so maaram loola wal sëñ gaabaan sëriñ gaawaan rekki ban may jaamam jaam say la jaam baatin bambara kami xaadam sog ndeego la jébbal saalanta dem rootil donga yi xayu toolam soxna jaara moo sellal donga yamu daa rootal seen ba moo niital sawru faal sawru faal moo jëfal ba muy leeral moo tax dëndam yaa nguy jib ci yëpp naa jëf jël bamba mooy néeg ba Cheikh Ibra di lamp bay leeral ab la jéemay Maamoor Jaara Maamoor Jaara ab la jéemay Maamoor Jaara yéena jaayi bamba yéena moo pëg pay jëf moo waral moom bamba abdulil la muy jëf yéena waral kërag buuram yéefalil la muy jëf yéena waral kërag dóoram moo tax abdulil war nay jëf te boole koog yéene loola mooy ngir ma dee jëf te boole koog yéene fu ñu doo jóg ak karaam soo kaay leenam kaw soo la daanaane moo taxoon musul leenam bu guddee mu dem diiwaan baa aras di waxtaani naan sa kaw soo ak leera moo taxoon musul di ko rekku mu mel ni kiimaan mu rànkay ngeniil ndax ngoolaal mu deewal saamaan muy wool ay jabar ak naa jooju